connexion internet nekk lu mëntu a ñàkk ci dunduk sénégalais yi rawatina ci askan wi yeewoo ci dëkk bu sell bi ci Touba ndax file ci biir dëkk bi ñu bari ci askan wi ay tukkikat lañu te seen njaboot gi ñu bàyyi seen ginnaaw ci connexion internet boobu lañuy ñuy mën a ngir amal ak ñoom ci ay communication waaye itam bari ay sit internet yoo xamante ni ñu ngi yëngu ci biir yoonu murit waaye itam di yëngu ci Touba te itam seen liggéey internet moom moo koy doxal Ismaïla Sarr ak Cheikh Gueye di ñaari ndaw yu dëkk ci dëkk bu sell xamante waaye li leen boole lëkkale leen moom moo di internet. Ismaïla Cissé dañuy yëngu ci yëpp opérateur yëpp dañuy liggéey ak waaw. Cheikh Gueye webmastering nekk administrateur sunu info. Ismaïla ab distributeur jamono ji di liggéey ak opérateur yu bëri di fësal ne yenn ci opérateur dañuy changer offre yi nga xam ne dañu koy defal clients yi saay su leen neexee te loolu itam nekkul loo xam ne lu gën la si clients yi. dañ ciy yëngu dañ ciy yëngu waaw dañuy yëngu ji yëpp opérateur yëpp dañuy liggéey ak ñoom waaw. waaw offre yi moom waaw des fois mu am ay changement nag des fois mu am ay changement waaw parce que léeg-léeg ñuy changé offre yi daal mais nii nii moom war naa mën a gën a yomb daal. jamono ji ñuy fësal ci yenn opérateurs yi nga xam ne ñoo gën a mag ci réew bu Sénégal di fësal ne am na ay pass yu nga xam ne dañu ko changé 1000 francs yi nga xam ne da nga ko daan jënd ngir renouveler sa pass internet ngir amaat 3 giga loolu le dagg nañ ko jamono ji lee loolu le di tiital Cheikh jàpp ne mën naa andi ay gàllankoor ci liggéeyam ndax liggéey bi jamono yi demeewul noonu te koppar itam nekku fi reportage yi demeewul noonu te ñun dañuy mun ñoo ñàkk connexion léegi su fekkee ne nag pass yi ñu daan jënd dafa yokk te validité bi tamit wàññeeku kon dana jar def ay jéego loolu it moom après bu ñu paree rek dañuy toog xool lu ñu nu ñu ci defee ay jéego ndax lu la bett man la te loolu it moom ni ñu ko waxee nii ni ñu ko déggee bett nañu jamono ji ak lu mu ci mënti doon ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo internet bi mënatuñu ko ñàkk seen dund waaye itam seen poche jamono ji yëg na ko lool tey amuñu menn pexe ngir jàmmaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo di opérateur yi ba ñu mën a wàññi li nga xam ne moom moo di njëgul internet bi fii ci réew bu Sénégal rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne bokk na ci ñiy gën a jëfandikoo internet bi ci réew bu